wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa radiya allahu an barzaqil maktumul gayb taajul aarifina wa imaamul awliyaai sayyiduna wa mawlana Cheikh Ahmad ibnu Muhammad Atijaani Cherif radiyallahu taala anhu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 moom mi nga xam ni moo may nu fekke waaye may nu itam nu tal ko di ko jaare te yeesal sunu ziyaara ci sang bi nga xam ni moom la ëmb yërmandeem mu di yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yàlla dafa gis ni mbindeef yi mu bind yépp kenn ku nekk la muy soxla mooy yërmande yàlla yàlla ni kon def naa ci muhammad wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ndax mbindeef yi mu bind yépp yërmandeem la ñu soxla moom yàlla boo demee ba àgg ci cadre bi mu lay gërëme loolu dañuy wax rek ni bénéfice la waaye yërmande yàlla moom la jaam bi soxla su ko defee kenn mënul dem sans yërmande yàlla te loo jëfit jëf ba la mu rëy rëy li nga war a yaakaar ca jëf ba mooy am ci yërmande yàlla moo tax xakim yi yàlla dénk xel yépp dañuy ñaan yàlla bu leen àtte ci seen jëf waaye mu àtte leen rek ci yërmandeem ñoom xakim yi dañuy ñaan yàlla bumu leen xoole seen jëf waaye mu xoole leen ca bëtu yërmandeem parce que yërmande ba ca la lépp xëj su ko defee it àdduna moom dogal bi nga xam ni moom la yàlla def ci àdduna mooy li muy yaatu yaatu yépp dafa am benn priorité bu tax ku nekk mu bàyyi ci àdduna rawatina nit ak jinne waaw wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni moo tax yàlla wax ni binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu di ma jàmm waaye mu mel ni itam jaamu bi ñuy jaamu yàlla mooy sabab bi tax ñu ñëw ci kaw suuf mooy sabab bi taxit yàlla indi ñu ci àdduna waaye liñ koy ëmbee liñ koy ëmbee rawatina société musulmane bi mooy jàppalante ak dimbalante mooy jàppalante ak dimbalante jàppalante définition ci cadre général mooy ñu àndandoo nekk benn dimbalante ci société musulmane mooy lu metti jullit boo ca Palestine war a mën a metti jullit bi ci senegal lu ko defee ci base boobu mooy dëgëral ànd bi nga xam ni jullit yi war nañ ko ànd li ci des nag mooy kenn ku ci nekk rek xam ni yàlla amul dund amul dund boo xam ni rek nekk na dund bu mu gërëm moom yàlla te lu dul ni dund boobu yàlla dina indi ay natt yoo xam ni dana lalu ca kay dund waaw ñi mu sopp ñépp dafa naa am nañu jaar-jaar boobu waaw ci yonent yi waaw ci awliyaa yi ci saalihiin yi kenn ku ca nekk yàlla am na natt yoo xam ni dina ko def ci sa dund natt yooyu nag du tekki ni borom bi daf la jéppi walla borom bi dafa soxlawul li nga koy jàmm dafay tekki rek ni borom bi daf la sopp waaw ba ñuy wax ni ku mu sopp sax yow yaay ëppi natt ndax bu ñu xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek li ko yàlla teg ci nattu kenn xamul la mu toll te pourtant moom yonent bi mooy premier soppe borom waaye gis nga moo ëpp ñëpp natt ñi mu àndaloo nit ki ay compagnon kenn ku nekk gis na seen nattu ñoom waaw nattu ñu jàngoon teg te nattu yooyu tay moo tax nga gis rek képp koo xam ni jullit nga su la yàlla tegee nattu sa fàttaliku bi jiitu nga xam ni mooy njëkk ci sa xel waaw ak fàttaliku bi nga xam ni itam mooy njëkk ci sa xol mooy gannaaw ba nga ko nangoo nga teg ci sant yàlla gannaaw ba nga ko nangoo nga teg ci sant yàlla ndax ku nekk am na lu la yàlla jagleel ki xëy jàmbat ni dafa ñàkk am na koo xam ni talul ñàkk ndax ma nga feebar ba fa mu tëdd mënu fa jëm ki xëy jàmbat ni dafa ndékkiwul am na koo xam ni jàmbatul ndékkiwul ndax moom amul sax la mu añeeg la mu reer su ko defee itam nga xam ni yàlla ku nekk rek am na ci base boo xam ni tëral na ko pour jaare ci sa texe waaw jaare ci sa texe am na ñoo xam ne yàlla daf leen di bàyyi ci jàkk yi nuy julli waaw di def lu baax waaw fekk seen texe ca la ne am na ñoo xam ne yàlla jàkk yi kese doyu ko ci ñoom waaw dafay bëgg teewul lu ñu nekk nekk muminuna xàqan mu indil leen natt yoo xam ni ca natt yooyu seen texe ca lay jaare am ñoo xam ni dañuy dem ba defe ni tax yàlla daf leen bàyyi waaw yàlla daf leen bàyyi seen rox détruire leen wala seen bakkan fekk na yàlla dafay bëgg situation bu mën a xew rek ñoom ñu mën a fexe am benn niveau de dépassement pour mën a jéem a jëm ci moom waaw ku nekk ak ni yàlla bëggee ni yàlla bëggee soo taxawee ëllëg yow man xiyaam bu lay gërëm mu gërëm la ci loolu waaw bu lay gërëm mu gërëm la ci loolu looloo tax rek ngay gis ni bu jullit bi nekkee ci àdduna moo tax ngay gis ay metit waaw waaye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa dafa daan wax ni àdduna jullit bi ci nekk nee na dafay jàppe boppam comme koo xam ni rek dafa nekk ci benn control bu sévère waaw contrôle bu sévère maanaam mooy moomul boppam yonent bi moo ko daan wax nee na jullit bi nekk ci àdduna nee na dafa war a jàppe boppam comme ku nekk ci contrôle bu sévère maanaam mooy moomul boppam waaw yàlla dëkk ko fi indi pour am lu mu ko sant waaw waaye itam pour am lu mu ko tere di xool nag ndax contrôle boobu mu nekk moom dana fexe ba respecté ko ba nga xam ni bu dee def ci faux pas faux pas bi am na lu koy dindi te mooy baatu astaghfirullah waaw jéggalu yàlla yàlla bañul ku def rek faux pas ndax nit mënul doon lu dul nit xam nga la muy bañ mooy ku ci def abadan waaw wala ku koy def ba noppi naagu ni du jéggalu yàlla moo tax sensu astaghfirullah nekk loo xam ni lu am solo la ci dundu jullit waaye yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni gis nga àdduna noonu muy mel nee na mi ngi gën a méttee nag mu ni sunu demee ba injustice nee na ba injustice nee na am doole boo xam ni kenn mënatu ko natab li nee bu nu demee ba injustice am doole boo xam ne kenn mënatu ko natab li ndax moom dañ ko laaj moom yonent bi mu ni bi ma yàlla di indi ci àdduna boobu injustice moo fi nekkoon te wax na dëgg waaw boobu màkk dañoo beew waaw ñii di jaamu xërëm waaw su ko defee kenn ku nekk rek tëral injustice boo xam ni kenn yamalewu waaw ku am alal noot ku la neex waaw su ko defee loo wax loolu dëggal waaw yàlla xëy indi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ci seen liggéey bu barkeel ca lañ doon dox ba injustice boobu la ca ëpp ñu effacé ko sur terre waaw parce bi ñu ko laajee ndax injustice bi itam dootul am yonent bi ni injustice bi dina dellu ci aaxirul zaman te nee bu dellusee sax nee na boobu dafay gën a empiré day dem ba tollu mu ni niveau boo xam ni sax kenn dootul mën a natt niveau d'injustice bi nekk sur terre te tey ci foofu lañu ñu toll waaw tey foofu lañu ñu toll foofu la te itam defe naa ni ku ko laaj le peuple palestinien ñoom xam nañ ni injustice bi fi mu toll ëpp na waaw injustice bi fi mu toll ak manipulation yi ëpp na. injustice ak manipulation rek la ndax itam xam nga ni ma koy waxee toujours ñi yàlla dimbali ñoom ñu moom seen suuf te seen suuf it amul kenn ku ci revendiquer ci ñoom naan suuf si dama ci bëgg tabax ay étage wala dama ci bëgg tabax ay immeuble wala dama ciy def tool suuf si pour jaamu yàlla la waaw suuf si pour jaamu yàlla la waaw su ko defee itam ñu dem bu suuf soosu ñeneen ña nga xam ne ñoo ci teg loxo te dañ leen ca xëjaloon rek am ay puissance yu yu rëy yu leen di jàppale waaw puissance yooyu itam dañuy mobiliser dañuy mobiliser seen i ay médias yi waaw suñu mobiliser seen i médias yi mooy dañuy fexe ba ñi nga xam ni ñoom ñooy victimes yi ñu wax ni ñooñu ñooy terroristes yi waaw su ko defee nag ñuy coupable yi ñu wax nag ñooñu ñooy victimes yi waaw noonu la médias yi di def médias yi ñoom loolu mooy seen liggéey waaw loolu mooy seen liggéey ñoom dañuy fexe ba ñi nga xam ne ñooy victimes yi muy waa Palestine ba nga xam ne ñoom la ñuy bombardé guddeeg bëccëg waaw lu wax nag ñooñu ñooy terroriste yi waaw su ko defee nag ñi nga xam ni ñoom ñooy coupable yi moom te yore bombardier yi nekk ci kaw di largué bomb yi ñu ñooñu nag ñooy victime yi fu mu ne médias occidentaux yëpp noonu la ñuy def moo tax boo leen di déglu boo ñàkkee bopp rek su ko defee da ngay dugg ci cadre injustice bi ñu instauré ñoom jaaree ko seen i de communication ak seen i wax yoo ni dara bi ci dëkk jàpp danoon jàppale dañu am jàppale te ñëpp gis nañu ko bari ci démb waaw Israël la nga bombardé waaw ma nga bombardé hôpital bu ay liir nekk bombardé hôpital bu ay liir yoo xam ne ña ngay soog a juddu nekk liir yu am ay 6 mois liir yu am ay 1 an waaw ak ay màggat yuy faju waaw ak ay handicapé yoo xam ni amuñu cër ba ñu doxi ma nga bombardé hôpital ba ñu rey ca lu kenn xamul waaw wala ko ñu xëy dañu sant seen média yi ni bu ñu wax ni ñoom ñoo bombardé hôpital bi ñu lii la jihad islamique ñoom ñoo doon sànni roquette roquette bi dal ci hôpital bi jihad islamique amul sax capacité boobu ñu koy wax ñoo ko bombardé ba noppi waxtaan seen biir soo defee dem seen mbokk américains yi ñu ñu soutenir leen président ba dem fa nga dégg lu mu wax naan euh, mu jot ci renseignement waa jihad islamique la gis nga ñëw dañu nekk ci manipulation bu rëy parce que gis nga guerre yëpp guerre guerre yëpp yi dem ba nga ñi nga xam ni féete nañu benn côté ni kii la ñuy jàppale li ci ëpp manipulation moo tax ñu ñu féete ko te tey loolu mooy seen arme bi gën a fataal wàllu manipulation waaw mooy mooy arme bi gën a fataal xam nga nag lu tax ñu mën a manipuler marché mooy ñoom dañu am ay télévision mboolum réew yu leen di soutenir yëpp dañuy mettre seen disposition ñoom seen i ay presse seen i ay presse gis nga tey boo ay chaînes yu bare da ngay dégg lan la ñuy tuddee Hamas wàllu terroriste waaw lay tuddee Israël victime boo xam ne mi ngi bombardé ay liir ci hôpital mu ngi mi ngi mi ngi rasé ay kër jàmbur mi ngi rey ay màgg mi ngi rey ay jigéen mi ngi rey ay xale su ko defee nag ñu xam ni loolu comme ñoom xam nañ ni loolu du yoon rafetul dañuy waxtaan seen biir waaw ba déggoo bu ñu déggoo yéen ñu ni waaw ñun ñoo bombardé mooy tul waa jihaad islamique la waaw jihaad islamique amuñu sax capacité boobu waaw amuñu sax capacité boobu ñu leen di wax naan ñoo bombardé hôpital amuñu ko ñoom Israël ñoo jullit yi ni ma ko waxee woon rek ca début ba ñoom it comme bu yéeféer yi dajee ñoom di manipuler di manipuler ñoom it war nañu mën a utiliser di di feeñal dëgg waaw kàddu yi leen yàlla jox waaw di delloo dëgg ndax injustice fi mu toll ci àdduna kenn xamul degré bi tey na mu toll da xool ci kawu France rek waaw kawu France actuellement ak jour boobu nga xam ne lu nekk defal na leen ko ci àdduna waaw trophée bu nekk indil na leen tegoon nañ ko koo xam ni mën nañ ni sax du mu tudd kenn ci tudd ñu waaw moom la ñuy bàkkoo muy Karim Benzema waaw li ngay dégg ci polémique bu Karim Benzema lan la bind maanaam Karim Benzema waxul waaw waxul de dafa bind dafa bind moom bind ni maa ngi jàppale Palestine waaw maa ngi jàppale Palestine di leen soutenir ndax ñu ngi leen di bombardé bombardement yoo xam teguñu ko fenn waaw maanaam dafa bind bind googu mu bind rek <laughs> fu mu ne réewam lu nekk ña ko koy wax. dem nañu ba ñu nii dañu war a nangu sax nationalité bi dem nañu ba ñu wax ni dañu sax nangu war a nangu ballon d'or ma ne ah kon yéen yéen ngi dëggal li sportif yu mag yi waxoon ne woon nañ seen ballon bi c'est politique ah, kon kay dëgg ballon d'or bu ñuy nangu ci wax damay jàppale Palestine ah, kon kay mbir mi dootul wàllu talent ah, kon mbir mi dootul wàllu talent wàllu politique la ñu yàq ko ci lu ne dañu war a nangu nationalité ndax ndax nee na bind na ni euh, dafay soutenir te boo bindee ni da ngay soutenir Israël ñu décorer la yëkkati la xam naa bu ñu amoon ballon d'or buñ la euh, tëggal sax tëggal la ci semaine bi jox la waaw pour wax la ni injustice toll na ko fu kenn xamul na mu toll waaw su ko defee nag ñi nga xam ne ñoom amuñu xel wala duñu suivre yooyu ñooñu la ñuy jàpp guddi ak bëccëg di leen manipuler di leen manipuler ndax euh, bi mu waxee loolu rek moom Karim Benzema da nga dégg. France ñu ni dafa am euh, liaison boo xam ni moom am na ko ak les frères musulmans xam nga les frères musulmans yi nekkoon Égypte mës naa nettali seen histoire ca gàmmu ki nga xam ni moom la faloon en Égypte muy Mohamed Morsi mais Mohamed Morsi ñëwul au pouvoir jaaree ci coup d'état dañ ko fal par les urnes par la voie des urnes mu gañe yàggul tuuti comme Égypte bokk na ci ñoo xam ne tey jii ci seen armée Amérique daf leen di soutenir ci wàllu xaalis lu bari ñëpp xam nañ ko fexe nañu ba Mouhamed Morsi moomu arrangé tu leen woon ndax dañ ni su nekkoon en Égypte continuer def ko comme ni mu fa nekkee kon mouvement bi ñu tuddee la Hamas dañuy am doole te dañuy am ndimbal yu bari yu jóge Égypte di dem ca bande de Gaza waaw moo tax def nañu le tout ba jële ko waxal ko ay histoire condamné lu ko keroog ba muy daanu di dee daanu ko ca biir euh, tribunal la daanoo ñu ni dafa crise cardiaque dee waaw kon manipulation yàgg na waaye nag gis nga manipulation su demee ba ak benn échelle bu kawe bi waaw boo xam ni maanaam kenn mënatu ko téye ndax ña koy def am nañu fañ koy jaarale am nañu technologie bu leen doy am nañu ligne de communication boobu julli ci seen bopp ñoom ñoo war a yeewaat seen xol yee seen xam ni maanaam bind ci sa statut ni maa ngi soutenir Palestine jarul xaar si gouvernement jarul ko ndax léeg-léeg nga dégg ñu toog ci réew mi naan waa position Sénégal la position Sénégal la Sénégal réew la mu ay jullit nekk jullit bu mu neex ci Sénégal am na droit bind ci statut ni ma ngay soutenir Palestine jël drapeau Palestine def loolu dama jar xaar benn gouvernement gouvernement bu dee ay jullit a nga te loolu nag moo tax yi bare maanaam da ngay dégg nit ñi kenn ku ne ñu laaj waa position réewu jàmbur moom lu mu wax réewu jàmbur du wax yàlla waxalul réew mi jullit bi la yàlla wax waaw nga yàlla bi mu santaane julli waxul benn nit ci Sénégal ni la da ngay déglu ba nu décrété benn loi pour nga julli dafa ni julli que ça nga nekk Sénégal wala nga nekk Mauritanie wala nga nekk beneen réew la la yàlla wax waaw moo tax it booy soutenir sa mbokku jullit yow voix ba nga am muy voix bi nga xam ni leer na yow am nga sax compte yow am nga euh, WhatsApp yow am yow kay xëy na sax sa mbir du dem su sore waaye yow mën nga bind bindal di soutenir naa Palestine jëlal seen drapeau def ci waaw boo amee juróom-ñaari fatiha yow mokkal jàngal leen ko yéene leen ko waaw ndax sa mën-mën foofu la toll kenn du la blâmer sa mën-mën foofu la toll waaw bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit bu nekk na muy soutenir moromam nee na mooy ko mën-mënam toll waaw loolu la yonent bi bi nee na jullit bu nekk na muy soutenir moromam nee na mooy ko mën-mënam toll sa mën man ci bind la toll bind sa mën-mën ci wax ni maa ngi yéen sa tuukër ca la toll waxal loolu sa mën-mën àgg na ci jàng fatiha yi yéene leen jàngal fatiha yi yéene leen ndax say moromub jullit la su ko defee ñële ñoom seen mën-mën ëpp foofu te ñoom bokkuñu ci communauté musulmane gis nga ñoom bis bu nekk jaral la leen lu ne jaral la leen lu ne te gis nga itam li ñuy faral di wax rek yàlla mooy natt bu nekk yàlla mooy natt ku nekk waaye gis nga natt boobu dal jullit yooyu mën na dal jullit bu nekk ci àdduna mën na dal jullit bu nekk ci àdduna ndax li ñuy dund man dama jàpp ni peuple palestinien ñooy peuple bu ëpp courage ci àdduna waaw ñooy peuple bu ëpp courage ci àdduna ci jamono yi ñu toll ndax ñoo xam ni ba ñu juddoo avant ñuy judd bomba bis bu nekk bombardement yaa ngi ci seen ay liir ay xale yu tuuti yoo xam ne sax na ngay am xelu dem naa ne dañuy jàngi école te mu leer ni la école ba mën na ko bombardé à tout moment ci suuf soo xam ni seeni suufu maam ñooy julli ji te leer ni yaa ngi génn di julli ji waaye dara wóor la mën nga dellu si ndax mënuñu bombardé jàkka ji ñaata jàkka lañ saraabi te ñooñu ñëpp ay puissance yu am doole nekk seen gannaaw di leen jàppale waaye teewul ñooñu takk seen fit dëgg-dëgg takk seen ngëm-ngëm ci yàlla àndandoo di jàng yàlla loolu loolu fa la jàmbartee moo tax bu ma déggee sax ci monde musulman beeg yi ci senegal la feneen ñuy sulli beneen polémique senegal dama naan xëy na xamuñu li palestinien yi di dund fii kenn beneen polémique xam nga fii lu ñu tax mooy Palestine seen bopp waaw waaye gis nga jullit xam sax seen priorité da ngay dégg ci Sénégal ñu ngi yeneen i polémique waaw nga dégg yeneen yooyu ñuy soulever yeneen polémique fi situation Palestine toll kenn warul tànn benn polémique bu dul jéem a soutenir Palestine waaw loolu mooy priorité pour leen nag te nañ ko mënee loolu mooy li am solo waaye gis nga <laughs> jullit bu nekk moom naan bu demee ba toog ba xelam euh, dal rek jàpp nañu moom sax xam na ñoo xam ne pour ñoom situation ba sax concerné wu leen xam nga xamul nag histoire diine moo tax am na ñoo xam ne pour ñoom histoire ba seen yoon nekk buñ déggee ko ci wax sax dañuy jàpp ma ni yéen troisième lieu saint de l'islam nekk ci Jérusalem di masjidil Aqsa di masjidil Aqsa comme ni ngay passé bi ay millions dem mag Makka du premier lieu saint de l'islam waaw na ngay demee jaari xam yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca masjidi nabawi waaw ca Médine waaw noonu la masjidil aqsa nekkee troisième lieu saint de l'islam boo ko jullit yoo am yu la koy protéger war nga bis boo xëyee sax yónnee leen pàcc waaw ndax la la la leen war ñoom moo la moo la ca war yow tey jullit bu nekk responsable nga ca masjidil haram ca Kaaba ga waaw boo amee xaalis yaa ngi fay dem pour def sa boo amee mën-mën bi yaa ngi dem ziyaare yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga boo demee ziyaare yonente boo ñëwee niñ lay niñ lay teeroo fii fii ci Sénégal da ngay romb bu ñu baar teg ay chaise nga laaj lan ñu ni ku jóge Màkka la ñuy ziyaar si waaw lu tax lu koy ziyaar si est moom la déedéet fa demoon la dafa demoon Kaaba bi moo tax ñu dem di ko ziyaari mu jël zam-zam xel lu nit ñi ñu ni dem na it ca masjidi na ci xabru yonente bi noonu la mel ca masjidil aqsa ca Jérusalem waaw mooy ñetteelu lieu saint de l'islam te ay jullit ñoo fa nekk yoo xam ne lan la sant lan leen sant ñu nekk fa guddi ak bëccëg waaw guddi ak bëccëg di di di di di garder lieu bi waaw di fexe ba jaamu yàlla ba du tardé waaye di fexe ba ni ko yàlla santaane nga di ko def moo tax pour man ci conflit yi la war a xamee képp koo xam ni xaritu jullit yi la ci conflit yi lañ ko war a xamee ci conflit yi lañu war a xamee képp koo xam ni xaritu jullit yi la ci rek soutien bi nga xam ni apporté nga ko ci monde musulman bi man bu ma nekkul woon supporteru Karim Benzema sax la mu bind dana tax ma jaay ci nekk supporter wax na dëgg waaw ah, mi ngi soutenir Palestine ci bind rek lu nekk bëgg ko ci daal naan nu retiré ballon d'or ma nu dindi nationalité ma pour la kooku bu ma ko nawul woon sax en tant que footballeur danaa ko jaare naw la ku nekk war a xamee kan mooy xaritu jullit ci lañ ko war a xam te képp koo xam ni yàlla may na la tur mu leer ni tur la ak ci domaine boo mënta fiire war nga mën a bind yow it soutenir moom comme lu mel ne Karim Benzema bind wane ni yaa ngi soutenir Palestine ñu xam fi nga féete waaw gis nga ñu nekk ci domaine bu mu mënta nekk di ñu tuddee leen ñii ñu wax ne ay star lañu ñii ñu wax borom tur lañu ñii ñu wax mën lañu suñ dee julli ci conflit yu mel nii lañ leen di xaar waaw ñu bind apporter seen soutien peuple Palestine ci lañ leen di xaar kenn xaaru leen ci lenn kenn xaaru leen ci politique soo dee jullit nga ñu ni yow porteur de voix nga wala yow kat dooneel nangam siiw nga ci wala yow ku ñëpp xam nga kooku luy mel nii lañ lay xaar nga bind ni maa ngi ci côté Palestine waaw ndax ñoom ñooy jullit ya nga xam ni ñoo di sàmm masjidul aqsa ba mu ne waaw ci yi lañ lay xaar moo tax loolu loolu benn bi loolu loolu macha allah lañ ci wax loolu loolu moom ku ko bind nag ñu wax ci macha allah ndax loolu yam solo yéen ñu ngi jàppalante ñoo ngi ñu ñu julli di waaye jàppalante seen biir waaye ci bind nag te bind ba mu ne mu ngi di bu kenn xamul na ko ci bind xam nga kooku buñ fa tolloo kon injustice dafay dafay dem ba da ngay yëg ci àdduna bu kenn xamul dëgg dëgg dëgg rek tay na mu toll injustice te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon na bu ñu demee ba aaxiru zaman injustice dina am doole boobu waaw nee na adduna dana dem ba li ma juddoogul mu ni man yonent bi mu ni li mu li mu fekke woon màgg loolu dana dem ba dana dellu si te ña koy yore su boobaa sax doole ba ñu am kenn lu xam lu mu toll te tey gis nañu injustice boobu tey gis nañu injustice boobu boo boo xoolee vidéo yi daf lay jaaxal boo xoolee hôpital ba dañ ko def ay jur yoo xam ne defuñu daal waaw fa ñu tëdd sa seen lal hôpital lañ ko tëdd ñii ña nga cancer ñii ñuy faj ñu nanga ñu fekk leen faat bomb waaw fekk leen faat bomb sànni leen ko waaw lii yooyu lu lu seen yoon ci conflit bi jigéen ñi ci rey rek lu seen yoon ci conflit bi waaw benn benn benn tooy mooy maanaam mooy code boo xam ni jàpp nañ ni mooy seen code mooy ñu nekk julli nekk ca bàndagal jeex amul leneen luñ def kooku nag kuy porteur de voix yow war e nga e- soutenir seen ko ci jàmbaare woon mu Sidi Lamine Niass lu nekk dañ waaw guddeeg bëccëg waaw Sidi Lamine Niass li mu li mu xeex ci cause palestinienne ci Sénégal néew na ko ko fi xeex waaw guddeeg bëccëg dëkk daan wax ba mu mujj def ne xanaa moom demoon na sax ko ñu naan télé bi mooy dul waa Qatar ñoo ko financé pour muy jàppale ko te tegu woon lenn lu dul xamoon dëgg rek mu di ko wax xamoon dëgg mu di ko wax moo tax nag ñi nga xam ni ñoom ci monde musulman la ñu nekk ñuy ay borom tur yu ñu xam période yu mel nii lañ leen di xaar ñoom ñëpp ku ci ne nga bind nga ni kat yow yaa ngi tegu ci côté Palestine waaw loolu sax même bu fekkente ni mënalul Palestine dara wala xëy na sax ba léegi ñu nga leen di bombardé mais dina apporter réconfort seen xol ñoom ñu xool xam ni jullitu àdduna bi yëpp ñu ngi mobilisé nekk seen gannaaw di leen ñaan loolu dana apporter réconfort ci te réconfort boobu lu am solo la te réconfort boobu kat la yonent bi digle jullit bu am ci tàng nee na sa moroomu jullit ronam mooy mu utiliser làmmiñam su fekkee làmmiñam la am réconforté la waaw su amee la mu utiliser alalam réconforté la waaye nag même ku amul alal am nga sa làmmiñ utiliser sa làmmiñ réconforté la waaw mais jarul xaar benn bee liggéey ndax jullit moom moroomu jullitam fu amee problème moyen bi mu am muy mën na la bindal message de soutien na la bindal message de soutien envoyé loolu mooy li ci am solo yonent bi nag ñuy message de soutien bi ëpp doole nee mooy ñaan waaw mooy ñaan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni di leen ñaanalante ci seen biir waaw de di leen ñaanalante ci seen biir waaw mu ne ndax nit mën na ñaanal boppam yàlla du ko nangu waaye nee na yow mi amee xol bu sell wala amee làmmiñ bu sell nga ñaanal ko yàlla nangu moo tax jamono yii yëpp jullit yu bari da ngay gis ñu daje di ñaanal Palestine c'est tout à fait ba sa masjidil rasul sax ñu nga fay def waaw jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa te jàkk yonent bi te Jordanie te Indonésie waaw te Pakistan fu nekk waaw te Koweït te Irak te Afghanistan waaw parce que loolu rek moo mën a nekk ndax bu jullit yi divisé am division bu nekk seen biir noonu islam yi daan leen massacrer kenn par kenn bu ñu dajalee seen doole kenn mënul leen daal bu nu bokkee rek nekk benn ëmb kenn amul benn puissance bu toog bu leen mënal daal waaw pétrole yi pétrole yu bari ngay dégg ci réew jullit yi lañ xoolal Arabie Saoudite ñaata bari de pétrole moo fa nekk yu bari ci occidentaux yi moo tax ngay gis ñu koy ñëw di xaritoog di di di nekk seen xarit ak loolu dengu la pétrole kon kay julli yëpp bu nu boolee seen doole kenn bu leen mën a def bu nu xàjjali ko nag yonent bi nee na xàjjali ko nee na dafay jur merub yàlla te nee na merub yàlla su wàccee nee na yàlla dafay def kenn ku nekk sa noon mën la jàpp noot la ba noppi toog sa kaw waaw te da ngay gis ni jamono yëpp monde musulman bi divergence yi am seen biir division bi am seen biir bari na problème yu bari tey loolu moo ñu ko jural waaw kon yàlla nu yàlla wëlbatiwaat def ñu benn boo xam ni mooy buumu waxtaan ci mu nga xam ni laahi jamian wala tafarraqu ñu jàpp ci te àndandoo monde musulman bi yëpp yàlla yàlla wëlbati seen xol ñu àndandoo nekk benn ba képp koo xam ne noonu islam la yàlla la yàlla nërmeel daaneel la ba nga xam ni ko nga tëdd doo ko képp kuy jàppale islam ak koo mënta bokk ak mouvement boo mënta yore yàlla la yàlla jox doole joo xam ne dana leen say noonu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu rahmatullahi taala wa barakatu rahmatullahi